Halo, kau kalo, ayo ayo, soalnya sendiri ada lu cebi oceh nggak apa-apa. Wah, mana nggak paham lah wah. Boleh kenal kan dia jalan pelan mana di masih wah. mana ya ham, buaya di gini, polis buaya mau gini, siapa nomor ini? Ini kan, mana abelu malu, tuh selalu abelu, kamera mau abel, mana abelu malu, ha? Semua boleh kian gini pelan dia mana? Yo infak mau boleh dia kalah rayau, nggak paham manggil jalan ya, pelan dia, sebuah kul malah. Wah, yo ini lah ni. singali nga ma ah waaye jàllal la laa wax sama yoon nekku ci la wax bul ma woowaat rek bul ma woowaat dégg rek lima la wax bu ma woowaat ñàkk fay bëgg a mo mon mari même y' a même quoi même là toi ton problème c'est quoi depuis là on te voit hein? tu dis laisse-moi ne me parle pas laisse-moi ne me parle pas tu parles avec qui depuis longtemps y' a quoi. c'est une dame qui est venue ici voir Camara elle a dit que Camara a pris son argent est-ce que c'est moi qui ai appris C'est Camara qui a appris son agent. C'est le marabout, c'est pas moi. Mais il m'engueule à chaque fois je m'appelle. Il m'a appelé dans autre numéro, je l'ai bloqué. Elle, a appris un autre numéro encore, elle a, appris. appelé. Elle me menace. Elle m'a dit qu'elle va amener police et gendarmerie ici dans la maison. Moi, j'ai pas peur de. Encore carrément, Koromoho là. Koromoho Camara encore, il a fait ça là. Il a fait ce qui est plus plus dans la maison là même là. Quoi Eh, Koromoho Qu'est-ce qu'il a fait Eh, Camara il a gâté la maison, il a cassé la baraque même. Ici, la eh, même là. Maya, explique-toi. Qu'est-ce eh, qu'il a fait Il a fait pur là. Mais qu'est-ce qu'il a fait eh, Explique-moi. Jean-Michel. Hein? On l'a trouvé là-bas, moi et puis Tan Bombi. Hein? Il a fermé sa porte là. Tan Bombi a tapé, tapé jusqu'au, Il ne veut pas ouvrir. Il dormait Dormait! hein? C'est là-bas même qui est grave même. Hein? Lorsqu'il est déjà mis à ouvrir la porte là même là, il nous parlait de il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Emma, eh, explique-toi très bien, ouais. Eh. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Qu'est-ce qui s'en va et qu'est-ce qui revient ah hum, Comment mon camarade a fait Qu'est-ce qu'il a fait A fait que mon enfant, ça va, ça revient. Jamais si on demande, il dit, il s'en va, ça revient. Et puis il part, il attrape jusqu'à, il croit que ça est là, il s'en va. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire. Il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Il n'a qu'à arrêter eh? Va voir ton fils. Oh. Hum, eh. Qui Jean-Michel Eh, on a cassé la baraque de la maison même. La gâté Il n'y a pas de problème. Moi, je vais régler ce problème-là. Hum. Il n'y a pas de problème. Eh, encore. C'est elle qui appelle encore. je ne le prends même pas. Mais là, je vais le couper au nez maintenant faut me donner la beauté. Non, non, laisse-la avec moi avec. Tout problème qui se passe dans la maison là, c'est toi et ta grosse tête là. Maison là, si c'est nyahami, nyahami comme ça, Job Tommy, c'est toi. Toi, tu donnes rien dans la maison là. On t'a hébergé. Eh, eh. eh. c'est pas ici qu'on l'explique. C'est terminé. mon colère là. Où est Jean-Michel Où est Jean-Michel Va voir ton enfant. Continue de gueuler comme ça. Regardez. Tu as mélangé ta maison, tu as mélangé ton enfant. Tu as mélangé ta maison, tu as gâté ta famille. Si l'homme s'en va même là, il dit viens chez moi. L'homme vient comme ça, et puis il s'en va. Maison là, c'est maison d'aller et rentrer. Va-t'en, reviens, s'assoit, partir. Hein? C'est où ça là même là Tu Tu as ce que tu as semé là. Va voir ton enfant. Regardez l'homme. L'homme qui donne rien là, il héberge tout le monde. Problème là, ça ne quitte pas chez toi. Oh.

kan lii lii fan lay wóori si ban dëkk la lii di wóori ay xam di yaa bam fi fettu supa yi bu fettoon sa jabay dina doy waay de andaami ah, tey mhm. mais doo ko saal kii daay doo saal kii daay daay oh, matta matta matta c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile salaamaaleykum eh, waaleykum salaam Diop lan la lan fii dara xew fii lan la dara xew na fi kay. ndax Maya wax na ma ay rentrée dellu si rentrée dellu si rentrée dellu si lan mooy rentrée dellu si mu ne ma Jean Michel suba ba léegi dafa tëju si biir néegam. lu xew lan la. tan moo am problème tuuti rek mais loolu du dara. tan yow man ban problème la yaaya tee man aw ma problème de moom daami tey moo am ay tuuti. mu am ay tuuti. ay souci. waaw waaw yan souci la am. sàkkayaam moo moo moo mooy demata ñëw. sàkkaram ban sàkkayaam. ma maanaam xay kanam bi mais xanaa gis kanam bi lu si ne déedéet yii mooy taram yi xay tanam moo nekk ci suuf maanaam aw yaam aw yaam aw ya bi moo dem mooy dem mooy demata ñëw bu Jean Michel waaw waaw Jean Michel lu ko yóbbu hmm? lan moo yóbbu sa aw la depuis depuis depuis depuis kii sëriñ bi ne fii Camara waaw bi mu demee waaw si boobu laa commencé di centre affaire bi des fois ma lam ko ma fekk foofu dafa ma lam ko fekk mu dem. moom léegi nag nga yaakaar ne loolu Camara la ko def. su su yille xamul duul. yooyu yaa wax. ah ko si li stress sa bopp la sa bopp la nekk wax nga dëgg si boppam la nekk li stress la damaa bëgg yii nga génn si te def sa bopp ne lii stress rek moo la jàpp. est du sa xalaatu jabar moo la jàpp. déedéet Diop sa waa xam nga ko ban la.

man xam ngeen ne yéen bu leen ma fontoo man seen bàyyi laa góor ngeen may góor te ay majeur ngeen dama bëgg yi ngeen def seen biir bopp yi ngeen génnee ko si. non man tey def moom ñi mu def ci biir boppam. yow yaay magam parce que boo ko boo ko mu jël lépp def ko si affaire bi ne dem day dem di ñëw. moo tax ma koy suyagé te dara demut. pourtant maa ngi koy suyagé. xanaa xamoo sedd bu métti sax day delloo. sedd bu métti day delloo est que du sedd bi tamit moo métti loolu tam mën na ne. daa mi ah man de maa ni ñàkk moom man de fi ma toog nii tax maa ni. di nga ñàkk kay. moom tedd. ah doole moom doon job solution. ah ban ci yow. papa doo too yóbbu ci beneen sëriñ mu ñaanay to ba xam. man dinaa fi jëlaat sëriñ indi ko si biir kër gi man li ma daj si sëriñ dinaa fi jugalaat sëriñ ci kër gi. mais boo amul sëriñ sax mu wutama cala. tey. yow kay li nga nam ma yaa ngi koy doog <laughs> yow kay. li nga nama yaa ngi koy doo ba wax. yaa ngi tey buy ñu foto waaye. ah yow yiy dem te ñoo ngi ut tànn boo indee tànn loo tay def. dëgg dëgg jar naa laaj. xam nga mën naa ko làmb à tout. ah. boo ko làmbee ma ne may ma xam nga ne yow li ma la wax rek moo si nekk yow stress la yow stress moo la jàpp. stress la stress yow psychologiquement da nga ko def sa biir bopp bii. te damaa bëgg nga jënd sa biir bopp bi. waaw. yan yow lan la. yaa ngi tey. yow di nga baay de. lu xew yuut na waaw bi de yuut na. daa kontaan ah, Diop. Ah. mu ne rek FNF. Eh. mu ne rek affaire bi. Ah. Diop. Hmm. ñëwaat na eh.